bàyyi lu bari pour di jël sa temps di ko jox pour dimbale say say moroom compatriote loolu daan def ñii loolu la moo tax suñu ko jàppee teg ko doole tey dafa mel nit ñi ñëpp dañ jàpp teg ñu doole teg foofu parce que xëy na pour woon moom mënoo nekk ci keneen man bi ñu koy jël fekk maa ngi bitim réew ma ne ah kon de man su ma eggee rek ma ñu jël ma yóbbu ma parce que comme ni ko kii waxee man participe woon naa ci webinaire bi nga xam ne moom la Africa Jom Center def te li ma ci doon xalaat di ki solli mooy réponse yi nga xam ne ñu ngi koy indi ci eh, problème immigration yi du réponse yu baax parce que c'est des réponses extraverties maanaam alal bu ñuy jëlee bitim réew ak bitim réew ñoom ñoo xam ne dañoo ragal nit ñi di ñëw foofu ñoom ñooy jël alal di ko ci def pour nit ñi toog fii ñu ne loolu du loolu mooy réglé mais ci biir loolu ci la nga xamee ni xaalis bu bëri jël nañ ko dugal ci Sénégal te loolu du secret parce que ay rapport étude yoo xam ne ne ay consultants yu sérieux ñoo ko def liste lépp li nga xam ne ne mooy ay programme yi am jógee ci Union européenne coopération multilatérale mais jógee ci aussi ci yenn réew yi copération bilatérale te loolu yàgg na depuis cinq te moom programme yu bëri yoo xam ne ñu ngi woon fii Sénégal commencé ñëpp xam nañu Frontex lu tolloog 51 milliards duggoon na ci loolu lu ci bëri dem ci wàllu sécurité maanaam ay jox takk der yi ay ay jumtuwaay pour ñu tere euh, nit ñi jóge fi am na le di fiduciaire depuis 2005 am na tamit programme yi nga xam dañ ko tabb fii Sénégal muy REVA di Gawana plus de de ay centaines de milliards ñu dugal ko ci bay programme yu mujj yi yi nga xam ne ne tey étude bu ñu def pour évaluer lépp lu ñu def ci wàllu riposte depuis mille 2005 ba 2019 mu ngi fi ñëpp nga gaañ ñëpp mën nañ ko gis mu ngi dox ci internet bi fondation bi ñu naan Federic Bol moo ko moo ko moo ko commandité ki ko def muy benn sama collègue naataango sociologue bu sérieux ba ñu wax Mamadou Ndongo Dime koo xam ne kenn du lam-laame ay liggéeyam mais information yi leer na plus de cent quatre-vingt-dix millions d'euros listé nañ ko ci quelques projet mais kii waxul lu gën a garaaw loolu waxul sax lu garaaw parce que lu wax garaawul loolu tamit garaawul cest waxul lu gën a lu gën a net loolu laalul bëgg a wax kon arrestation bi ci luñ ci xam avocat yi waxe ko bu dee ci ay propos mi kese la day loo xam ne ne ñun dañ koy naqarlu te duñ ko nangu foog ñu taxaw effectivement pour àndax moom mm-hmm. ñu génne ko foofu mu ne parce que bu ñu ko fa defee tey suba mun nañ fi def ku nekk fii mm-hmm. loolu la te loolu nag dafa am beneen affaire jàngat bu ci am lan mooy stratégie régime bi régime Macky Sall ak yeneen régime nekk Afrique de l'Ouest comme ay Bénin ak ay yu mel noonu Côte d'Ivoire dafa mel ni ñoom dañu leen dugal ci benn ruq tënk leen ci benn façon de faire muy une Rwanda rwandaisation de l'Afrique loolu nag foog ñu taxaw ci tey bu dañ bëgg a profité ci occasion yu mel nii comme mbas mi ci occasion yu mel nii comme coow lu jóg ci affaire immigration pour di ñu tegal ay loi yu bees yoo xam ne dañoo bëgg a tënk pour la durée loolu foog ñu teel si jóg tey ne mënul am Sénégal parce que ñu duñu ay Rwandais amuñu même histoire Rwanda c'est un pays de lutte depuis avant colonisation fii ay lutte la te contexte nu mu mënti demee tey loolu tamit xam na ne du fi jóg donc loolu mooy li ñu ci mënoon yokk di leen gërëm di leen sant. jox euh,